Euh, c'est un aveu de de de de d'échec d'abord ak ñoom ak seen parti d'origine muy PDS parce que ñoom ñoo dajaloo lëkkaloo dajawaat fii mooy les libéraux yi nga xam ne mm. depuis 2000 ñoo fi nekk mm. lu nañu wan ñu ko ci réew mi parce que am nañu seen candidat boo xam ne ne respecté wul normes yi parce que encore une fois affaire Karim moom ma gisee ñu koy def débat daf may jaaxal suñu constitution moo wax pour nga nekk président foog nga doon sénégalais mais ñëpp gis na mu ne fàng kenn Karim Wade bi muy déposé candidature am il n'était pas exclusivement sénégalais mais constitution moo ko dàq donc loolu amul sax lu ñu xoolaat foofu amul lu ñu xoolaat foofu lu ci gën a garaaw nag mooy parjure bi ci tegu parce que da ngay def déclaration sur l'honneur nga wax loo xam ne ne xam ne lu dëgg boo bindoo sax nga ne peut-être à un délai presque je vais être je vais respecter l'exclusivité parce que j'ai déjà fait ci cela être on aurait compris qu'il était de bonne foi. Hmm. que c'est une question de jours et cetera après bon à cause à cause xam ni ñu koy lijjante mais député yi donc loi bi ñu jël c'est une loi anticonstitutionnelle.